mbokki internet mbokki Sénégal yéen ñiy safoo di seetaan suñu Actu TV daa leen jaam ñu ñëw si ki nga xam ni moo di journaliste bii di wuyoo si turu Pape Alé ñaa ginnaaw ba nga xam ni doon na def ay génn ay vidéo yoo xam ni mi ngi ko doon jëmale di wax si ki nga xam ni moo di Cheikh Bara Dolly ñàkk a taxawu bi nga xam ni moo am si moom ba tey mi ngi àddu si dossier ki nga xam ni moo di Ousmane ak ki nga xam ni moo di Adji Sarr mais avant tout ñu commencé ko si digganteem ak ki xam ni moo di Cheikh Mbacké Bara Dolly ginnaaw ba nga xam ni moom mii di Pape Alé Niang nekkat seetlu na ni yoon ba mu tegal loxo ki nga xam ni moo di Cheikh Mbacké Bara Dolly boobee ba tey gisuñu benn mbokkam itam di génn di ko jéem a défendre te kat yoon na woon ñi nga xam ne ñoo di ay mbàkke mbàkke ñenn su ñoom ñu génn daal di sàpp si yoon ngir mu def boobee atte ngir ñu mën a xam moom mii di Cheikh Mbacké Bara Dolly fa ndey féetee moo gën ñu bàyyi ko foofee ca kaso boo muy continuer ne di fa toog te jamono ji ba tey kenn atte gu ko ginnaaw ba nga xam ni waxoon na ay kàddu yoo xam ni xaw naa ñàkk war ma torop si ki nga xam ni moo di kaw njiitu réew mi di Macky Sall boobee ba tey nag moom mii di Pape Alé Niang yoon la woon ñu daal di atte ki nga xam xam ni moo di Cheikh Mbacke Bara Dolly ba tey mi ngi àddu mu mii di Pape Alé Niang nee na kat Cheikh Mbacke nga xam ni moo tax ñu daal koy teg loxo nekkul woon yoon parce que gis nañ fi ay nit yoo xam ni ñooy wax lu gën a foofu jëmale ko si kaw ki ji ñi ngi continuer di doxi seen soxla si dëkk bi comme niñ ko bëggee kon yoon la woon kat mii di Cheikh Mbacke Bara Dolly ginnaaw ba mu waxee kàddu yooyee képp koo xam ni yaa wax kàddu yu mel noonee kat ñu def comme ni ñu def Adji Sarr ak Ousmane Sonko ba tey moom mii di Pape Alé Niang mi ngi siy àddu nekkat moom mii di Ousmane Sonko mi ngi koy alerté bu baax baax ngir mu def attention si nguuru ki nga xam ni moo di Macky Sall ginnaaw ba nga xam ni def nañu benn complot bu mag daal di koy awee ki nga xam ni moo di Adji Sarr loolee yëpp ngir bëgg ki nga xam ni moo di Ousmane Sonko ba tey moom mi nga xam ni moo di Pape Alé Niang mi ngi koy alerté bu baax baax ngir mu moytu pexe yi nga xam ni jamono ji gars yi ñi ngi koy teg ngir mu bañ a bokk si ci élection 2024 yi nii waree nekk ay kàddu yoo xam ni ak ay conseil moom mii di Pape Alé Niang di ko yëkkati di ko jox ki nga xam ni moo di Ousmane Sonko ginnaaw ba nga xam ni yëkkati woon nañ ab coow ak benn tuuma ak ki xam ni moo di Adji Sarr ba tey moom mii di Pape Alé Niang mooy wax nee na dossier Ousmane Sonko ak Adji Sarr waree nag dafa nekk loo xam ni dafa arrangé bu baax a baax ñi nga xam ni ñooy xeex Ousmane Sonko jamono ji kon yoon la mu moom mii di Ousmane Sonko mu def attention bu baax a baax parce que ñi nga xam ni jamono ji si kawam dañoo jël dossier bi bu baax a baax daat koy aji fu kawe kon ñoom instant bii ni xalaatuñu benn yoon ngir teg boobee dossier si suuf parce que dossier boobee dafee naa may occasion ngir ñu mën a teg bépp tuuma si kaw ki nga xam ni moo di Ousmane Sonko kon moom mii di Ousmane Sonko def attention bu baax a baax si ñi nga xam ni ñoo koy xeex jamono ji ngir bëgg koo éliminer si politique bi nga xam ni mooy am fii nii si Sénégal ginnaaw ba nga xam ni am na ay coow yu doxoon si moom si digganteem ak ki nga xam ni moo di Ousmane Sonko ko mbokki internet mbokki Sénégal mi ngi noonu di ñaan képp koo xam ni abonné ko bu fàttee abonné di jox seen commentaire di aimé vidéo yi jaa ngi jëf